الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله أجمعين وبعد فإن مما ينبغي أن لا ينساه المسلم طول حياته القبر أول منازل الآخرة الذي إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وحيث ينتقل المرء إلى حياة أخرى يتبين فيها للعبد مصيره ويجد حصاد أعماله والذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظه منه ولفظاعته الشديدة هذه مظاهر منها عذابه الواقع قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ابن مسعود رضي الله عنه المعيشة الضنك وعذاب القبر وقالت عائشة رضي الله عنها دخلت علي عجوزان من من عجز يهود المدينة فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما walam un'im an usaddiqahuma fa xarajata wa daxala alayya annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qultu lahu ya rasulallah inna ajuzayni wa dakartu lahu fa qaala sadaqata innahum yu'adabuuna adaban tasma'uhu albahaa'imu kulluha fama ra'aytuhu ba'du fi salaatin illa ta'awwada min adaabi alqabr wa qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna alabda ida wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashaabuhu wa innahu la yasmacu qarani alayhim ataahu malakaani fa yuqcidaanihi fa yaqulaan maa kunta taquulu fi hada arrajul bi muhammad alayhi salaatu wasalaam fa amma almuminu fa yaquul ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fa yuqaalu lahu unzur ila maqaadika min annaar qad abdalaka allahu bihi maqaadan min aljanna maqaadan min aljannati fa yaraahumaa jamiican wa amma almunaafiqu walkaafir fa yuqaalu lahu maa kunta taquulu fi hada arrajul fa yaqulu laa adri kuntu aqulu maa yaqulu nnaas fa yuqaalu maa darayta wala talayta wa yudrabu bi matariqa min xadidin darbatan fa yasiixu sayxatan yasmauha man yalihi gayru thaqalayn wa min mazahiri fasaatihi aydan dartatuhu allati laa yanju minha ahad wa fi lxadiiti laqad nazala li mawti saad bni muaz sabuna alfa malak maa watiwu l arda qablaha wa qaala alayhi salaatu wasalaam xiina dufin subhaanallah law infalata ahadu min dawtati alqabri lan falata minha saadu wa laqad dumma dammatan summa ufrija anhu wa an anas anna annabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama salla ala sabiyin aw sabiyatin fa qaal law naja ahadu min dammati alqabri la naja hada sabi ñi ngi sant borom bu tedd bi subhaanahu wa taala di julli ci yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi li nga xam ne jaaduwul kenn ci nun di ko fàtte diirub mi ngi ci kaw suuf dund mooy bàmmeel kenn ci ñun waru ko fàtte te nag ñi ñun ñuy doxee lu bare liñ ciy sedd mooy dafa mel ne bàyyi wuñ xel bàmmeel moom nga xam ne mooy kër gi jiitu ci këri àllaaxira yi àllaaxira ay ay ay ay la ay manazil la manazil bi ci jiitu mooy bàmmeel te moom yonent bi alayhi salaam na benn mu nekk ab dër ci yi lépp di xéewal wala mu nekk am pax ci paxi sawar yi lekk sëb buy tàkk yaasu billah bàmmeel moom nga xam ne mbokk yi jaam bi dana tuxu fii ci àdduna dem fa ci geneen dund bu ñuy wax dund bal sax te su duggee mu jëm lépp da koy leer fa muy mujj ëllëg da koy leer nañ lam jëfoon lépp lay tàmbalee kooku bu dee yiw mu tàmbali caa jariñu bu dee safaani mu tàmbali caa loolu yonente alayhi yonente bi alayhi salaam nee na mosumaa gis mbir mu ñàng mu raglu lu dul ne bàmmeel ko ne ñàng gën koo raglu ñàngaayam googu ak raglu googu nag bari na lu koy firndeel bari na lu muy feeñe bokk na ca mbugal mu metti may nekk ci bàmmeel su boom bi waxee ci alxuraan ne képp ku du mooyu téere yàlla bi ku du mooyu alxuraan dund lay am te bu yomal xeamee buy dekki ak ñàkk gis lay dekki waale sunu nee na dund gu bu karaj boobu mooy mbugalum bàmmeel sunu yaay Aïcha radiyallahu anha nee na ñaari màggat yu jigéen yoo xam ne ci yahood yi Madina lañ bokk dañoo mos a ñëw ci man di waxam ak man ne ma waa bàmmeel yi de dañ leen di mbugal ci seen i bàmmeel ñu ne ma weddi leen li wax daal gaw ma nee na ñu génn dem Jibril alayhi salaam ñëw ma wax ko li ñu wax mu ma wax nañ dëgg de nit dañ leen mbugal ci seen bàmmeel mbugal moo xam ne mala yëpp koy dégg mala yi dox yow yaa xamul day ku bàmmeel mala yaa ngi dégg ña fa nekk di yóbbu na ginnaaw boobee gisuma Jibril alayhi salaam mu julli génn julli lu na yàlla yàlla musul ko ci mbugalam bàmmeel mu moom njël bi salaam ci beneen xadis ni ab jaam saa bu ñu ko tëralee ci bàmmeelam ba ñu ko doon denc ay mbokkam wan ko ginnaaw te nee na dana dégg seen keppet keppati dàll yi ca saasa la ko ñaari malaaka yi dikkal jekkil ko mu toog ñu ne ko looy wax ci waa ji jublu ci yéen yàlla Muhammad alayhi salaam bu dee ku yàlla defoon mu baax yi mu doon ak jullit bu gëm dana wax ne man de maa ngi seere ni jaamu yàlla woon te ndawam ñu ne ko xoolal sa barab ba nga waroon a am ci sa sawara ma nga nee soppil nañ la ko beneen ci àjjana mu xool gis ñaari ñaari barab ñëpp ci àjjana naa fekk ak yéefar nag bu ñu ko waxee loolu day wax rek daan man dal dara li nit ñi daan wax daal laa daan wax danañ ko dóor yatu weñ woo xam ne dana yuuxu yuuxu goo xam ne ku dul nit ak ginne da ko dégg ci ñi ne wetam kon bàmmeel danañ fa bugale nit bokk yi lu mat a bàyyi xel bokk na ci it najug bàmmeel ci liy wane bàmmeel lu ñàng lu mat a bàyyi xel la bàmmeel dana nag nit ku fa tàbbi kum mën a doon loolu nag yonent bi salaam nee na kenn du ci mucc am na boo xam ne Saad ibn kenn la ci saxaaba yu mag yi yonent ne bi faatoo juróom-ñaar fukki wàcc nañ ngir teral teewee ñoo xam ne mosuñu laal wàcc suuf ñu malaaka yooyu ba noppi nee na subhanallah bu kenn doon mucc ci najug bàmmeel day Muaz mi Saad mi mucc daa ne nañ nañ ko ak nag waaye na yàggul ginnaaw ba ñu daal koy dindiwaat ginnaaw ba ab jullit kon naju bàmmeel du metti ndax du yàgg waaye yéefar moom ci naj gël koo xam ne nii ñaari wàll suuf si ñooy daje naj ko ba nga xam ne nii dañoo wax ne ay faaram de rappaloo aliasu billahi taala eh, Anas ibn nettali na ne jërëjëf mas naa jullee benn xale ba mu noppee daal di wax ne bu kenn doon mucc ci naju bàmmeel xale bi mucc kon bon yi sax di mucc ci loolu mbokk yi kon loolu mat di sóoraale ci suñu dund la bëggoon bàmmeel nag ak mettit yooyu nag ak ñàngaayam googu daa am sabab am na yu koy waral yoo xam ne ku ko moytul yàlla mosal bokk na ci koy sabab di ràmbaaji nit ñi di dox di jaxase ay nit di wax fii di wax fee ngir nit ñi noonoo ak koo xam ne day dem wanag ci du fendaliku waxtu wu ne muy taxoog sa day islaam nee na dafa ma sa romb ci benn ñaari bàmmeel daan ñaari ñii di ñu ngi leen di buggal daan kenn ki daf daan daf bu tuuree ndox du nopp du ba set day daal di jóg yére yi tax mu yóbbaale solo keneen ki rek mu ni daf doon rambaaj diggante nit ñi kon rambaaj ay nit ak ñàkk sàggan ci sa bopp bu ko waxtu wu ne sobee na ci say yére bokk na ci li waral mbóol bàmmeel bokk na ci it yenn bakkaar yi nga xam ne nii bakkaar yu rëy la lu mel ne lekk riba lu mel ne njaalo lu mel ne nar nar wu rëy woo xam ne day tasaaroo ci àdduna ak nelaw te julli woo farata yi nga war a julli salaam nee na mas naa gis ci ay nelaw ay nit ñoo xam ne ñu ngi leen di mbugal te xam nañ ne xam ngeen ne géntu yonent lépp dëgg la wax yu la ñu leen mbugal nee na mu laaj jibril mu ne ko ki nga njëkk a gis nga xam ne dañ doon jël bopp bi di ko dóor ci ay xeer nee na nit la goo xam ne day jàng alxuraan waaye lànk nu mu koo jëfee guddi jot mu war a julli ay farata mu nelaw te julliwul farata yi mu war a julli danañ koy teg jël ay xeer di dóor ci bopp ba di ko mbugale lool mu ne ko ki nga xam ne da koo gis Euh, moom itam nee na ñu jël lu mel ne ay ab ab aw yàpp wala lu mel ne si sisoo di di dagg ŋaam wi di dagg paxi bakkan yi di dagg bët yi ba ca loosoo nit la koo xam ne nii daf daan xëy këram jekki-jekki wax wax ju rëy ju amul yoo xam ne ñëpp dañ koy dégg kon kuy wax lu a rawat di ko tasaare rawatina jumtuwaay xarala yi nga xam ne léegi mën nga cee wax léegi wax ju amul adduna ko bu dee salaat nee na kuy def loolu bu duggee bàmmeel danañ jël ay siso di xar gémmiñ ga di xar bakkan ya ak di xar ay bëtam liansu billah mu ne ko góor ak jigéen ñi nga gisoon nag ñu rafle nekk ci mel ni ab puur bu tàng jër ñu leen di mooy ñi nga xam ne dañuy mu ay njaalukot lañ ñu góor ñu jigéen ne koy góor gi nga xam ne da nga ko gis muy féer ci dexuk sawara ñu di ko ŋala ñu di ko leel ay ay xeer mooy lekk kat riba yi kon mbokk yooyu nañ ko moytu te yu bari yu tasaaroo na jëflante yu bari ci suñu réew yi jëflante riba benn tibb riba mën naa jural ki mbugalum bàmmeel bokk na ci jëw wax ci sa mbokk lu ko neexut ci ak ñàkk teewaayam yu bees na bàmmeel ne kii day ñu ngi koy mbugal ndax dafa daan lekk dere nit ñi daf doon jëw nit ñi moo tax ñu ngi koy mbugal daal di jël ab car bu tooy ne teg ko ca ko bàmmeel ndax xëy na fii car baa ngi tooy yàlla woyofal mbugal waaye ñu ngi koy mbugal ndax jëw gi mu doon jëw bokk na ci yi waral mbugal bàmmeel mbokk yi lekk alali mbooloo mi alal ju mbooloo mi moom nga ko lekk doy salaam nee na benn waay boo xam ne ci fatu xaybar ca la daa faatu nit ñi di ko yéem ak di ko ñee naan shahid na yooyu alayhi salaam ne am na mbalaat moom jële woon ci màng mi di séddale ko ma ngay tàkk ci kaw te ab yi bu doon xeex ci yoonu yàlla bokk ci jullit ñi jàpp ne bokk jullit ñi taxe la waaye ndekete jël lum jël lu moomul tax nañ di ko mbugal ci kon mbokk yi loolu it jullit nañ ci bàyyi xel bépp alal joo xam ne mbooloo mee ko moom mu ne ci say loxo nga war caa liggéeyal mbooloo mi saa boo ko lekkee nanga xam ne mbugalu bàmmeel ma ngi li nekk moo xam ne euh, fa muy mujj kenn xamu ko te it ku fa yàlla yërëmut fa ngay des te sëriñ bi daan nañu jàng jàngal ci njàngale wax ne bàmmeel nañ ko bàyyi xel nañ ko bàyyi xel ndax ku fa dugg fooyu maa nga maw ku doon def lu baax def aw yiw yar ak sa njaboot ñi def lu baax ku yiw boo faatoo lu yiwoo bari bari yaa ko yëg fas yéene jariñoo boobu yomal xiyaam nga dugg aljanna yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu waaye ku defut aw yiw ci àdduna bàyyi woo fukki dafa yiw boo duggee bàmmeel noonu nga fay xale nekk dara du la fekk riyaasu billaah ba yemul xam taxaw yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ñu yàlla boole dimbali mu musal ñu ci lii waral dugalum bàmmeel alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala maulana muhammadin wa alihi ajmain wa baadu فإن لعذاب القبر أيها الإخوة المؤمنون أسبابا عديدة منها المشي بين الناس بالنميمة وعدم الاستبراء من البول وقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين وهما يعذبان فقال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ومنها ارتكاب بعض المعاصي كالربا والزنا والكذب الذي يبلغ الأفق والنوم an ilsalaati almaktuba fa an ilnabii sal allahu alayhi walihi wa sallam annahu raa fi manaamih aqwaman yucadabuun fa saala jibrila anhum fa qaal ama alrajul alladi atayta alayhi yunfaxu rasuhu bilxajar fa innahu alrajulu yaxudu alqur'ana fa yarfuduhu wa yanaamu an ilsalaati almaktuba wa ama alrajul allati atayta alayhi yusharsharu shidquhu ila qafaa wa manxiruhu ila qafaa wa aynuhu ila qafaa fa innahu rajulu yaxdu min baytihi fa yakdibu alkidbata yablugu al afaq wa ama rajul wa ama rajul الرجال والنساء الذين العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني وأما الرجل الذي أتيت عليه يصبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا ومن أسباب adaabil qabri alxiibatu ayuha alixwa faqad rawiya annahu alayhi salaatu wasalaam ataa ala qabrin yuazabu saaxibuhu fa qaal inna hada kaana yakulu luxuma annaas wa minha algulul wa min algulul aklu amwaali nnaasi aklu amwaali ljamaa qaala rasulullahi alayhi salaam walladi nafsi biyadih inna chamla uh, warada fi xadisin qad usiba rajulun yowma fatxi xaybar fa qaala annaasu hani an lahu shahaada fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallazi nafsi bi yadihi inna shamla allati asabaha yowma xaybar min almaganim lam tusibha almaqasim la tashtailu alayhi naara rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasanata wa qina adaba annar ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم